asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokku Sénégal ñu ngi leen di nuyu leen siyaare bu baax jërëjëfe Sëriñ Tuubaa jaraw la ko maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp d'habitude comme ngeen ko rek eh, seen cabinet univers bio bu Sëriñ Lamine Bara Fall tey ji nag ñuy am benn produit bu ngeen di présenté benn recette naturelle bu ngeen di may gratuitement bu paa nag dañuy jublu ci ñi nga xamante ni dafa leen nattoo ñu am problème bët ñu am problème vision ñu am problème mu cataracte nga xamante ni dañu am problème mu glaucome maanaam lépp li nga ni rek dafa jëm ci xeetu bët donte ñett yooyu ñoo ci gën a fes ginnaaw yàlla dogal na ñun ay chercheurs lañu si wàllu médecine traditionnelle ñu am connaissance bi bu baax ñu bàyyi xel ni non seulement day faj mais day prévenir. kon li ci ëpp solo mooy prévention boobu médecine traditionnelle dañ ko xam dañuy yor cabinet univers bio géejawaay arrêt du bales di faj bu baax ñëpp xam ne mais lu ñu faj faj faj it am na ñi xamante ni mën nañ leen ko baaxee dañ koy jëfandikoo bu ngeen ko jëlee lépp yàlla ci def ci tawféex incha allah donc kon ñu présenté leen rek loolu moom ñëpp xam nañu ne moom jar la jar moom Sénégal yi xam nañ ko xorom polle jinjeer ak ñal bi nan ak naka lañ koy jëlé parce que garap da dafa nek lu mesurable ak lu quantifiable kon nak bañ leen ko wax bo ngeen comprendre ko ci kàttanu suñu borom waaw li nak lepp xam nañu ni xorom polé la benn kudd nga ci jël moom fees ah jar baa nek ni ñu nit dañ ci tuddu ben kudd ay kudd cuillère à soupe ah. pour jinjeer bi nak dañ ko wara nat natt moom it koy acheter ba paré mais da ngay nat sa loxo rek nat sa loxo ba mu fess ben poignée nga def ci kon bu leen fàtte xorom pole bi kudd nañ ci jëloon jar bi kudd nañ ci jëloon jindeer bi sa loxo ñëw nag ba mu fees nga aché ko parce que ba mu set nga def ko ci biir ndox mi moo nekk nii benn butéelu ba mu fees bu un litre ñu daal di feebaru hépatite B dafa nekk feebar bi nga xamante ni feebar bu sonal àddina bi la rawatina nag fii ci Sénégal dañu constaté ni dafa bari ñi am feebaru hépatite B. te ëpp ci ñoom ay porteurs sains lañ porteurs sains nag boo leen ko déggee mooy virus bi mi ngi sa yaram mais mi ngi nelaw c'est inactif amna ay garab yi xamanteni c'est bio naturel garab yi nga amul ben toxique amul ben chimique c'est typiquement naturel mën nañ leen ci may ay garab may leen ci ay ñaan mu tegu ci diine tegu ci l'islam tegu ci alcorane képp ku ko mos jëfandikoo rek yàlla dañ la ci defal tawféex ba yàlla def hépatite B boobu dina dañ carrément ci sa yaram ba dootoo ci yëg dara Inshallah. allah leen ñu ci numéro bii di 77 160 93 93 ñoo ngi nekk cabinet bi Géejawaay arrêt Dubalès kër Serigne Bara pour ñu nekk Touba mën nañu woo ci 76 283 98 69 jërë ngeen jëf. merci beaucoup yàlla na leen yàlla defal jàmm te wéral leen barki borom Touba. voilà comme ni ngeen ko gisee teg nañ ko ci cuisinière bi baax na au bout de dix minutes li ci des mooy rek ko dafa tàng nag moo tax doo ko sol directement ci bouteille bi. voilà comme ni ko gisee kaasu ndékki moom la ci jël dina koy sucré ak oil pour ñi xamante ne nag amuñu jabet pour ki nga nag am nga produit bët ba pare am jabet nag bu la neexee mën nga ko naan sans sucre wala boo ko boole ko sa sucre diabétique voilà nañu ci bëgg rek benn xëdd bu ndaw mooy noonu xam nga tàng nag mais dañ koy naan à chaud même bu fekkee yàlla dogal na nga koy denc ci sa frigo aussi aussi à tout moment nga koy utiliser à chaud lañ koy naan bëgg nañu nit ki di ko jël ñaar ba ñetti yoon par jour bu ko toppee ba mu yegg rek yàlla dana ci def tawféex mbir yi dana leer nañ gis-gis gi dana yokku pour ñu amoon ñepp ñu amoon glaucome ñu am cataracte ak lépp xeetu feebar bët non seulement day faj mais day prévenir am li ci ëpp solo karena prévention boobu kon nag képp kuy faj ak kuy yëngu ci wàllu bët rek ñoo ngi lay ñaan vidéo bi na ko xefe gis ci kàttanu yàlla ak baaxam yërmandeem incha Allah rabbi bu ñu perte suñu valeur traditionnelle africaine macha allahu rabbi yàlla am na ñu may te bañ ko bokk ak barke borom